famille sénégalaise fin de saison fin de saison sari Rami Fa sari Thiem famille sénégalaise ñoo ngi ni nuyu nuyu te di seen bu baax a baax mais gars yi tey chronique bi nag dañ koy changé tey ni muy demee mooy famille sénégalaise fin de saison bi nga xam ne gars yi nañ ko nekk loo xam ni gars yëpp yëpp kenn xaar ko woon nekk loo xam ni ñi ngi naan fi mu jeexee dafa teel ñi ngi naan fi mu jeexee est-ce que am na sens wala amul sens mais fi mu jeexee est-ce am na sens wala amul sens soo si bëggee xam dara seetaan ak ba mu jeex mais nag en temps ba tey ndax saison 2 bi dina am wala du am ak kañ lay ñëw soo si bëggee xam dara ba tey xoolal mën na seetaana vidéo bi mais ba ñu commencé vidéo bi nag maa ngi lay wax nga aimé vidéo bu dee abonné ko nga abonné ah, xam ngeen ni Biigué daal instant bi nee na dafa fas yéene dem sëyi Biigué daal nee na instant bi dafa bës dafa fas yéene dem ami jëkkër nekk benn affaire boo xam ne nag jigéen bépp jigéen bu baax mi ngi koy ñaan nekk loo xam ne nag yaay bu ne mi ngi koy ñaanal doomam xam ngeen ne Biigué ki nga xam ni mooy jëkkëram bi avant muy nekk ak moom sonn na torop su fàttali ko ñoom ñaar seen Euh, mariage bi avant muy am son sonnoon nañ torop ñoom ñaar ñëkkoon nañoo waxtaan ba ñu bëggante woon sëy mais nag ñu dem a dem a dem ba ki nga xam ne mooy soxna ba toog ñëw yàqu ko ba ñu daal di dem a dem a dem ba papay bigé bañ ne moom dootu may ki nga xam ne mooy batu a ah, doomam kan moo fa awoon ki nga xam ne mooy soxna ba toog kasi moo a awoon waaye nag ba soxna ba toog demee kaso dañoo gis changement bu bëri bëri bëri si famille sénégalaise dañoo gis changement boo xam ni en ah, kër gi instant bi mi ngi commencé neex maago mi ngi commencé juboo ak ay njabootam ñoom ñëpp commencé nekkaat benn benn ba ki nga xam ne mooy biigee daal di am jëkkër ba mu amee jëkkër nag ñu koy takk nag bañ koy takk papam teew yaayam teew papam kontaan si moom yaayam kontaan si moom di ko ñaanal nekk loo xam ne dafa neex dafa neex torop yow ñu koy takk sa yaay ñëw kontaan si sa yaay ñëw kontaan si sëy bi sa papa tamit ñëw kontaan si sëy bi foog naa loolu moom ñëpp koy ñaan lan moo bon kay mooy yow am jëkkër boo xam ne sa yaay bëgg ko ba tey sa papa bëgg ko loolu moom foog naa kenn ñaanu ko te sëy boobu sax soo xoolee mënta dem bu baax a baax mais sëy bi man na gëm naa ni nag dina dem dina dem parce que moo tax ma na dina dem son xoolee ah ki nga xam ne mooy Mariétou kontaan na si Mariétou ñaanal na ren Mariétou nee na nii mooy àdduna nii mooy sëy même tamit papay biige kontaan na si kontaan na si ba ñaanal ren mais nag son xoolee avant papay biige kontaan nañu kontaan nu si woon de papa yi bii nee na woon sëy bi fii mu ngi dund du mës a am kon moo tax mu ne woon du mës a am comme ni ma leen ko waxee woon soxna Batoor Baadoora <laughs> moom moo fa awoon daal di yàq xelu maagoo bi Badou sax moom yëgu woon na na demee mais baru nee moom du bàyyi Badou nekk koo xam ni dafa bëgg biige dafa bëgg biige lu mën di am sa àdduna biige moo ko ko jaral naan daal xëcc bu daggu digg bi mm, mm, ki nga xam ne mooy batu tamit daal di topp biige topp ko topp ko topp ko ba tey seen diggante daal di nekk nekk koo xam ne nag neex na torop nekk koo xam ne nag gën naa neexal mm, série famille sénégalaise nekk koo xam ne nag ñi nga xam ne ñooy suivre famille sénégalaise kontaan nañ si torop kontaan nañ si torop parce que son xoolee biige sonnoon na torop avant mais instant bi moom mi ngi commencé am ay bànneex instant bi moom mi ngi commencé dund normal instant bi moom mi ngi commencé gis papaam papaam mi ngi koy jàppale gars yi foofu mën a jàngee papa dafa am solo si doom sàkk sàkkamtu maag nag doom bu jigéen gis ngeen tadu gis ngeen biige ba ko papam abandonné non boobu dafa mel ni ku dof waaye nag ñu toog a toog ba moom ak papam ñu commencé waat nekk nekk loo xam ne dafa marqué biige toog biige tamit daal di si kontaan ah waaye tamit xam ngeen nii <laughs> ah, xaw ma kii ñeenteel xaw ma ñetteel gaay ñeenteel ko mën a woowee xaw ma ñetteel ngir ko mën a woowee daal gars yi jox joxal ma ko si commentaire yi moom daal nee na dafa fas yéene ñëwaat sëy si son xoolee moom mooy yaayu kii nga xam ni mooy maral nee na moom fas yéene naa ñëwaat si kay gi si biir kër gi sëy siwaat kan moo tax mu sëy siwaat man mën naa wax ni doomam bi moo ko ko conseil doomam bi moo ko ko conseillé mais tamit soxna Bator gis ngeen ni ba mu génnee kër gi ba tey ba tey o oh, kër gi dafa neexaat vraiment soxna Batoor daal moom moom dafa yéex a dem kaso soxna Batoor daal moom gars yi vraiment waroon naa teel dem kaso ndax série bi neex parce que soo xoolee moom dem kaso bi mën naa wax ni ñëpp ku ko yéene dem kaso bi moom moom ah ñëpp ku ko yéene soxna Batoor daal moom moom moo mel noonu nekk na nit koo xam ni yéema na bëri na ay pexe moom daal su sañu kër gi moom kase si nekk moom daal su sañoon ak kër gi moom kase moo si daagu mais beneen femme ah du si daagu mais nag ñu toog a toog ba ki xam ni mooy yaayu Mara daal di ñëw ne moom daa fas yéene say mais nag mu daal di posé Maro question bu am solo ne ko man ñeenteel la wala man ñetteel gars yi ndax moom ñetteel la wala moom ñeenteel la jox leen ma ko si commentaire mais man mi ba tey def maa jaaxal moom ñetteel la wala ñeenteel mais man daal li ma si mën a jàpp moom instant bi moom ñetteel la waaw soo xoolee instant bi moom Maro bàyyi na soxna ba toog femme bi wax na ko fa affaire bu am solo ndax yow nee nga bàyyi nga soxna ba toog mais est-ce que am na témoignage oh soxna Botor gars yi su génnaatee fii mën naa ñëw ne moom ba mu may bàyyi amul woon témoignage si saison 2 bi nag laa leen laa leen wax ni saison bi su ñëwee nan la nar a mel soxna Botor mën naa génn kaso ñëw ne Maodo fa fara foosu da nga may takkaat sinon ma yóbbu la si yoon parce que ba nga may bàyyi suñu diggante amul woon témoignage parce que femme bi nag wax na ko ba mu ko waxee nag Maodo nag nee na ko maa si xalaat Maodo nag. foofu il faut mu war def gaaw mooy dem uti témoignage ni moom bàyyi na soxna ba toog ba ñu signé ko si ay kay soon xoolee ba tey ñoom ñaar si diggante ak signé guñu bàyyi bàyyi na mais nag ba tey ñu bàyyi diggante boobu nag mais xam ngeen famille seen gaares ñoom ñoom ñëpp njaboot bi ni ngi nekkoon si biir kër gi nag ba waxtu jóri jot ñoom ñëpp jàpp daal di jóri nag nekk benn action boo xam ni ngeen koy gis ci série sénégalaise gars yi fii waxante dëgg ah fii waxante dëgg moo tax ñuy def vidéo bi ngeen koy gis ci série sénégalaise dafa néew en tant que ñu ne ay musulman lan en tant que ñu ne ñu ñëpp am diine te fii yi ngay compter waxtu jëri jot ñu jàpp ñoom ñëpp jëri man de moom mën naa wax ni maa ngi koy soog a gis ci famille sénégalaise loolu nag yi muy wane famille sénégalaise gars yi am na sens famille sénégalaise soo koy seetaan nekkul ni da si perte sa temps mais yaa ngi si jàng bu bëri mais am na yeneen série yoo xam ni dangay seetaan saison 1 saison 2 ba saison 3 ba mu jeex tàkk tàkk mais ñu kenn jàpp fa wala kenn jóge fa sax doo ko gis si biir série ba mais famille sénégalaise nag nekk benn action bu nice waxtu jóge jot ñoom ñëpp daal di jóge jigéen ñi nekk si ginnaaw góor ñi nekk si kanam ñu daal di jóge daal di sërmal nekk koo xam ni daal dafay wane ni ñun amuñu lu suñu diine ñun amuñu dara dara lu suñu diine en ñu mënti wax ñun diine moom mooy pay quoi loolu nag moom nice na nice na te loolu oh, pour man waroon naa am si bépp série mm, te soo xoolee série yi daanaka ñi koy daanaka ñoom ñëpp ay musulman lañ quoi waaw mm, daanaka ñi koy see ñoom ñëpp ñoom ñëpp am diine mais da nga gisee ni série yoo xam ne ñu koy see fay def ak jëfin bi ñu fay def da ngay da foog ni ñii amuñu diine moo xam dañoo bokk si chrétien wala dañoo nekk musulman ay jëf yoo xam ni daal yéeme na yéeme na torop torop torop waaye nag gars yi kër gi moom neex na kër gi nii moom mel neex na neex na torop ñëpp yaakamti woon nañ ko mais soon xool eh, ba tey sëñ bi nag wax na Marietou affaire bu yéeme sëñ bi nee na Marietou ñaanal ma Marietou nee na ko man dama ñu pour nga ñaanal ma yow nga may wax ma ñaanal la ah <laughs> kon gars yi xam ngeen ni kon moom nit ku baax la en tant que yow sëriñ nga dem si moom pour mu ñaanal ñaanal la mais sëriñ boobu tourné ne ko yow yaa ma ñaanal nekk koo xam ne une fa mën a jàngee dafa bëri sëriñ bi ne nit ki nit ku baax nekkul si am xaalis nit ku baax nekkul si soñ nit ku baax daal fenn kese la mooy si jikko te yow si jikko bi dafa baax lan moo lan moo tax sëriñ bi xam ni mag Marietou jikkoom dafa baax parce que soxna ba toog mi ngi doon def affaire yu ñaaw Marietou mi ngi ko doon mbugal di ko def fu ne mais Marietou moom yéenewu ko dala dara loolu jaamu mais sëñ bi dafa dem ba xam ne hmm, dafa dem ba xam noonu si Marietou mu daal di xam ni kii nit ku baax la mu daal di fexe fexe fexe ba Mario indiwaat ko noonu nag Marietou demaat si sëñ bi ne ko dama bëgg ñaanal ma sëñ bi ne ko yaa ma war ñaanal parce que yow xam naa ne yaa ma gën jikkoo ah yow yaa gën foofu te fii kenn gënu fi kenn nit fi mën a gënantee daal mooy si xol xol daal moom mooy sa xol su baaxee xamal ni yow baax nga mais sa xol su baaxul xamal ni yow amoo benn sens da ngay gis koo xam ne am na xaalis ah nii wëg nii ah mais xolam baaxul gis goo xam ni amul dara mais nit ku ko doon tooñ mu jégal yeneen ñi ñëpp ñëpp ñëpp jàmm kooku xam ngeen ni mu mënta nekk chaque jour chaque jour si coono même su nekkee si coono yàgg yàgg day naat bànneex même su nekkee si coono. ah dafa de yàlla moo ko natt foofu son xoolee sëñ bi mi ngi ko koy wax sa coono bi nga nekk woon xamal ni nattu yàlla moom moo nekkoon si yow te yàlla dafa doon tese mais tese naa la ba xam ni yow nit ku nangoo muñ nga tese naa la ba xam ne yow jógit xakkan nga tese naa la ba xam ne yow nit ku baax na kon marietu xamal ni mos yow nit ku baax na te sa nekk ak jëkkër bi nekk gën a fonk gën a toppatoo sa jëkkër bi te nga continuer nii nga nekkee nii nga nekkee bu bu la si dara euh, jëre Mariétou nag nii mu mel jafe naa gis si jamono ji Mariétou nii mu jafe naa gis si jigéen ñu euh, ñi nga xam ni instant bi ñoom ñoo nekk si jamono ji parce que fii da ngay gis koo xam ne dafa nekk ak jëm si benn kër mais ñoom ñaar du duñ yénnate jàmm kee def koy yéene savane mais moom tamit mu tourné waat yéene ko savane soo xoolee soxna soxna Bato yo day yéene Mariétou savane mais Mariétou moom du ko yéene savane Mariétou toujours dafay bëgg soxna boto di am jàmm néew ak nii soxna boto di am jàmm mais moom soxna boto moom <laughs> xam ngeen ni fi mu mujjee moom neexu fi mu mujjee neexu loolu yëpp nag moo ko teg boppam ndax dina gaaw a génn wala du gaaw a génn soo dee bi ndax su ñëwee moom dina gaaw a génn soo leen xoolee moom instant bi tëj nañ ko ñetti atu kaso mais ñetti atu kaso yooyu est-ce que dina ko tëdd noo pour man du ko tëdd parce que Mario mën naa demaat demaat demaat ba ne moom daf koy jégal ba ne moom jawaram na génn kaso mais ñoom ñaar seen diggante moom mën naa jeex mais na génn kaso na génn kaso parce que nag sëy moo mel noonu nit ki soo nekkee moom benn fan ah roma bu doon dafay def ñaaw nga nekk moom benn fan safaan su ko daree yow doo ko ko yéene safaan su ko daree yow dafay métti dafay métti mais bu doon dafay toog xaar di la teg coono safaan su ko daree dafay métti kon nag analyse baa noonu famille Sénégal nee na mais ndax dina ñëwaat def si vidéo kon abonné ren ndax suñu ñëwaatee def si vidéo ngeen seetaan